Euh, Diop maa ngi lay nuyu waaw soo Ndeya maa ngi lay nuyu di di nuyu waa solution TV yëpp di wax dal leen a jàmm fii ci Ndindi ci Ndindi kër sëñ Cheikh Thioro honorable député. voilà Diop tey mu bëggoon a xam rek sa relation ak euh, Serigne Cheikh Thioro Mbacké parce que cadre Pastef yi bëri nañ loolu macha allah mais nga taamu ci si Cheikh lan moo waral waaw sëñ Cheikh moom d'abord dafa nekk sama sama sëriñ parce que li ñu boole sëñ Tuubaa la ak mbokk mais aussi yàlla dogal ñu ñu pas-pasu euh, ñu bokk moom mu jox ma cër wax dëgg yàlla di ma confier ci ay ay mission yu bëree bëri bëri mag koy defal euh, cër nag ni su la ko joxee ak doyloo su la ko joxee rek da nga ciy sant yàlla mais aussi à chaque fois que jëfee da ngay def loo xam ne nii moom mi ngi gis yaakaar gi mu am ci yow nga xam ne doo tas yaakaaram si njub ci alalam ci ay digganteem ak ay doomi aadama mais aussi si ay digganteem ay mbokkam rawatina nag ay mbokki politique am ñi ñoo bokk passif daaw si ay xat-xat lañ nekkoon ñu ngi woon rëbës euh, ren jii kon dañuy sant yàlla bu baax ba niñ koy bëggee di ko màggale fii ci këram di ndindi. Euh, lii it nag wax yàlla du ma ne guddee lii ngeen def nii yàgg nañ fee ñëw relation yi mu amoon moom c'est la première fois sax lu ñu màggal may ñëw di fanaan Touba moom moo siñ tele laa njëkk def loolu lu du màggal may ñëw kër Touba di fanaan këram laa ko defee kon loolu wax dëgg yàlla dañ ci sant yàlla bu baax ak baaxam la rek la ñun moom mënuluñ suñ bopp daala waaye moom ak mbaaxam la Euh, di ñaan rek seytaane yàlla musuñ seytaane musuñ ci lépp loo xam ne day yàq ab diggante rek loolu la rek waaye li ànd moom ànd bi li ko lal moom mooy dëgg dëgg rek moo ko lal ak bëgg réew mi képp la waaw loolu moom mbaaxam moo war a mu wàccee boppam ba xam ne suñ toogee sax maa moom daanaka danga naan sax Jóob moom ki daa yeb sañ <laughs> jox ko jër loolu ak mbaaxam la rek waaw di sant sañ alaaji aussi waaye waajuram ay waajuram aussi dañoo yaatal ci kër gi waajur mu góor waajur mu jigéen ba ci soxnaam madame Mbacke di ko ñaan aussi yàlla may ko taw fi may ko njaboot ko barkeel ak ay rakkam ñoom ñëpp ñu ngi leen sant. voilà bëggoon a xam rek Diop na nga dundee màggal gi ak euh, bernde yeeg nit ñi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci kër sëriñ bi. waaw si Cheikh nag wax dëgg yàlla màggal gi moom dafa euh, yéene rek lay demee mooy d'abord mooy xéewal yi xam ne nii ay mbokki ay mbokki parteem indi nañ ko mu si mel ni wàllum gouvernement bi ay ndimbal lu ci mel ni ay ndox lu ci mel ni boisson lu ci mel ni ay bonbon lu ci mel ni ceeb. li ci mel ni boisson lépp loo xam ne nii rek maam doomu aadama ay condiments xam ne doomu aadama dana ko soxla ci màggal gi indi nañ ko fi kon moom mi ngi sant ñooñu baax a baax seen taxawaay mënuñoo tudd tur waaye moom it ni mu ko defee rek mooy comme que ñooñu it dañ ko jox yéene ko jàppale ko mu ne kat samay dëkkandoo laa njëkk a jox ak sañcaan yi nga xam ne nii dañoo fas yéene ànd ak Serigne Touba ci bigéem bi ci bisim bi pour bégale ko su santale ko suñu borom moo tax nag ñeent fan yëpp daanaka ay quatre heures matin la ñuy tëdd dañuy dugg ci kër yi dem ci santaan yi camion bu wàcc beneen ay oto ñëw na jël charge ñu séddale kon daal wax dëgg yàlla ñi ngi sant bu baax a baax baax si Cheikh Thioro taxawaayam bi rafet na trop fii na ku fi ñëw da nga xam ne màkkaan la boo xam ne nii bakkane na tax daal wax dëgg yàlla lépp lu fi ñëw ci teraanga rek sëñ Cheikh moom séddal na ko nit ñi amul lenn luñ denc fii te soo xoolee euh, depuis démb ci guddi rek kër gi dafa fees dell ak ndox ak ay xéwal waaye gis nga bi nga ñëwee fekk ko fi dara lépp jox na ko nit ñi parce que nag wax dëgg yàlla moom politique am dafa indi la indi politique autrement c'est-à-dire jot na lu ñëpp bokk ñëpp jot si lépp loo xam ne nii sa alal la nga jox ko nit ñi lañ moom nga bàyyi leen ko loolu moo war a wax dëgg yàlla a simple député képp la du ministre du soo xoolee kër gii ñett fan yii ni mu meloon ci ay nit ñoom ñëpp ay soxla rek lañ koy wax waaye kenn ku nekk bi nga ñëwee sa soxla sëñ Cheikh Thioro fajal na la ko ba ngay dem bëgg nga kontaan nga te sax màggal kon wax dëgg yàlla taw euh, tawféex na. loolu nag dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ba léegi euh, gis nañ prob jafe-jafe yi nga xam ne waa Touba ñu ngi koy dund euh, jëm ci wàllum ndox bien vrai que ne le président Bassirou euh, Diomaye Faye doon wax ne que ne ci mandaawam bii kat na ci def kéntu lay kàttanam ba problème yooyu mën a jeex biir Touba. waaw ci wàllum jafe-jafe màggal li muy njëkk wax mooy sëñ Bass Abdou Khadre moom moo ne lépp loo xam ne gouvernement waroon na ko ak dëkk bu sell bi rek wàcce nañoo moom ba def nañ sax loo xam ne nii ñoom seen njort wax dëgg yàlla dafa kawe lool ci loolu ci taxawaay boobu ndox nag dafa nekk euh, lu vital ci doomu aadama rawat nag fu am mbooloo dajale ñu naan ay millions ñoo fay dajoo si ñett fan yi ba tax na may leera rek sur les quarante deux forages yi xam ne nii commune Touba am na ko benn forage rek moo fonctionné moom la ñu naan Escabé moo nekk Ndaamaatu moo nekk Janatu benn forage rek moo moo moo moo doxul soo xoolee fan yii si jàll amoon na forage xam ne ñoo paanoon moteur dañoo paanoon ay pompe Cheikh Tidiane Dieye de manière drastique la jënd ay moteur yu bees tàq teg ko ci camion indi ko ba gis nga image yi sañcaan yeeg ak askanu Tuubaa ñoo jóg di sant Cheikh Tidiane Dièye te soo xoolee état dafa mobiliser tout l' ensemble de son gouvernement président dañ leen wax ne leen une semaine avant màggal ak quatre jour après màggal damaa bëgg direction yëpp nañ jas biir Touba pour ñoŋal pèlerin yi seen nekk mën a rafet ba tax na ci loolu noonu dama ñëw rek ci wàllum transport transport fu mu Euh, El Malick Ndiaye ministre transport dafa mobiliser trois cent bis trois cent bis la mobiliser soo xoolee premier jour bi rek trois cent bis rek vingt cinq mille train lañ jëlee indi ko biir Touba nga xool ci wàllum train train bi fu mu nii soo xoolee wax dëgg yàlla quarante cinq mille train lañ jëlee diggante Diamniadio Thiès indi Touba kon loolu aussi ab taxawaay la boo xam ne nii gouvernement am na ko ñu ñëw ci wàllum santé soo xoolee hôpitaux yi. ndax moom benn taxaw boo xam dafa desoon ci wàllum hôpitaux yi c'est-à-dire état bi xam ni moo fi jógee moins de deux cent millions la daan octroyé hôpitaux yi pour des pour des soins d'urgence comme ça accident su amee rek dañoo war a faj ñooñu duñ xaar seen mbokk duñ xaar dara soo xoolee ba Bassirou Diomaye Diakhar fay huit cent millions la joxe ci xaalis liquide ne ñooñu buñ ci xaar kenn dañ leen faj su doyul ñu dolli xam nga comme loolu taxawaay la ma xam ni wax dëgg yàlla ñi ñox na ay jihadiste lañ ñi ñox na ay salafiste lañ ñi ñox na dañuy xeex diine ñoom dañoo ñëw ñongal diine sëriñ Mountakha Bassirou ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak président Sonko li mu gis si ñoom mooy ay ndaw lañ ñu am gëm-gëm lañ waaye nag ñu am yéene ci defar Sénégal waxul ci yéene defar Taïf defar defar Touba wala defar Taïf wala defar defar Sénégal lañ wax parce que nag un développement se commence à la base doog dem au niveau national soo xoolee ci loolu première infrastructure a premiers travaux yoo xam ni sont des chantiers extraordinaires président Diomaye mi ngi ko def ci Mbacke Bari te Mbacke baari moo war a bis bi tukki ba moo war a bis parce que le 10 août 1895 la Cheikhul Khadim jugee Mbacke Bari dem tund jeewal la Leclerc te Mbacke baari boobu à l'écart de 15 jours à en temps record la son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jox ay dérives wala ay directives El Malick Ndiaye moo xam ne moo ministre des infrastructures ak aussi Birame Souleye Diop mi xam ni mooy yor ministre de l' mu ne leen Mbacke Bari benn suuf sa ñu naan màggal si ñëpp seen oto daan yàqu puusu oto dafa nekkoon suuf sa bari woon ngelaw la bari woon daanaka Mbacke Bari ay jafe-jafe màggal lañ am te soo xoolee benn émission parce que dëkk yi wër Jolof yëpp tali nañ leen ba mu des Mbacke Bari Bassirou Diomaye bi mu ñëwee Mbacke Bari da koo tali Mbacke Bari soo doon doo fa suuf fépp dañ ko tali pava penc bépp Birame Souleye indi fa deux cent et quelques lampadaires Mbacke Bari keroog mu fu ñëwee bi ñëwee suba la màggal xamal ne ña doon liggéey liggéey nañ ba deux heures matin te li gën a extraordinaire mooy infrastructure bi ñoo ko doon def ñëpp si gox boobu lañ dëkk c'est-à-dire main d'œuvre bi jéggaani wuñ ko si gox boobu la dëkk kon loolu dèjà kon mooy war a ni ñii dañoo jóg pour ñoŋal kilifa diine ñii dañoo jóg pour ñoŋal lislaam. régime bi lii la soxla kuy wax ci wàllum euh, li nga xam def nañ waaw jéem parce que xam nga gis nañu da ko war a weesu Sénégal tollootul foofu wax kese ñi ñaan lekkati béy lekkati kese naxul ay bay loolu moo am ñii dañoo jóg pour liggéey te soo xoolee loolu moo ci gën tuuti c'est la partie visible de l'iceberg li ñuy wax nii ne ñoom def nañ ko parce que soo xoolee si wàllum assainissement imagine soixante-dix milliards ñooy def nañ ko si assainissement Touba durant douze ans te soo xoolee fu mu toll nii su tawoon Touba tëmb kon soixante-dix soixante-dix milliards yooyu fa mu waroon dem demu fa Bassirou Diomaye Diakhar fay avec ONAS ak OFOR dañoo jóg pour xeex. ak mbëndum Touba OFOR mooy approvisionné ndox mi pour ni ñi mën a am ndox soo xoolee citerne nii li ñu mobilise citerne presque mobilisé nañ cent trente sept citerne cent trente yëpp OFOR ñoo ko moom sept yi armée ñoo ko moom te soo xoolee sept yaan ji suñ saa coro fii ñu taxaw nii barki dem la njëkk a joxe trente cinq moto pompe yoo xam ne nii ci xaalisam ci loo ko jëlee. loolu effectivement. ñu tourné waat mu joxaat soixante quinze moto pompe jox ko askan Touba boole ko ay gilet ay bot ak lépp loo xam ne nii rek. ay ay gants lépp loo xam ne ni nit dana ko yor pour soxla pour xeex ak ndox soo xoolee waa GPS keroog le 6 boobu ñu defoon mooy assainissement mooy set setal bi ñu fi defoon set setal bu mag boobu ñu defoon mais soo xoolee ndaamaatu da ngay wax Touba soo xoolee ndaamaatu patriote ñoo dugg ci caniveau yi ngacc ko ba mu set gucc keroog waa ndaamaat nee nañ fii mësuñoo gis biñ fi defee caniveau yi ba léegi nit ñëw dugg ci ngacc ko keroog ndaamaatu nee nañ heure bu neet amee kenn dootu jaar lu wër ndaamaatu ba nee bi jeexee soo fa demoon nee da nga gis sareer fa lañ jaar kon loolu ab taxawaay boo xam ne nii c'est un don de a pour la patrie ñun loolu lañ soxla état mi ngi liggée de mais nag jub jubal jubbanti moom la ñu doxee. jub jubal jubbanti. mais xëccoo bi bëri na ci yéen euh, Diop Taïf parce que euh, bien vrai que ne yéen a xeex ñi dugg ci prison euh, ñi am ci ay handicap ainsi de suite xëccoo bi bëri na daal ku nekk naan dañ ma war a nafal dañ ma war a def lii wala dañoo war a fal sama mbokk est-ce que loolu war na leen. comme ñan loolu bokk si ñun moom ñun Pastef. sérieux waa Pastef. non jaru may lim tur mais dégg nañ. non dégg nañ moom du benn yoon du ñaar yi ñii naan ñun ñoo xeex ñun ñoo risqué suñu ay euh, suñu vie euh, ñoom ñu bàyyi dem ba falu dem di fal ñeneen. ndeya non ndeya ñun si Pastef non ñun gis nañ ñun pacte social bi ñuy bi ñu animé bi ñu lié gis na président Ousmane bi ñu ñuy woo ci projet bi waxuñu ku ñëw da am sec da nga am salaire wala da nga am poste da nga am dara kenn ko da gis sa bopp ci projet bi ne ñun dañoo war defar Sénégal ñun ñu ne la doon sang pour la patrie man de gisuguma a patriote parce que fekkee li ñaan man maa xeex Ousmane Sonko kan moo gën xeex man mii di wax ak yow su fekkoon la politique policière la ñuy def mais kon am naa ci nomination yi am naa ci xaalis maa ngi commencé di commencé tuxu tayif dem Dakar institut parce que loolu moo fi naa am kon loolu mooy rupture li ñu naan jub jubal jubbantu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut peut-être nag du ñàkk nit ñi am ñoo xam ne nii dañoo jàpp ne ñun 2024 suñ duggee palais seeni noflaay day commencé président Sonko man damaa xool projet passé bi la sëriñ Macky Sall loo waxoon benn ziar moom laay wax yéen patriotes yi képp ku ñaaw njott wala ku yàkkamti su réew mi di baax doo ko fekkee ñaar ñooñu rek laa gëm ne ñoo jaaxal Ousmane Sonko yàkkamti ak ñaaw njott xoolal barki démb li mu def ndekete moom photo martyr yi la def ci bureau heure bu signé heure buy liggéey ak lépp lu muy def loo xam ne nii rek ay position la wala ay décision yu muy jël bureau su gestoo wala su siggee day xool martyr yi ñooñu lan lañ doon xeex tey réew mu jog réew mu baax képp la ñoon xeex dañ ñoon rêvé un Sénégal meilleur un Sénégal de tous et le Sénégal pour tous waaye léegi ñu suñu essayé wala ñun ñu taxaw naan am job tef naan dama dañ war jox lii dañ maa a jox lee waaw na xalaat Papito Kara ah na xalaat ne nii dañoo yoroon drapeau Sénégal ñu dóor leen bal ñu tëdd. yàlla suñu borom yërëm. dafa extraordinaire amin dafa extraordinaire kon encore une fois may wax nañ dal président nee na mi ngi ci liggéey bi. te jógu ci te dañ xam ne nag Sénégal lañ doon rêvé mooy jëlum réew mi moo gën a yomb li gën a jafe nag ci lañ nekk. yoonu salaam bi jógee si jaxaatu ak jaas yi leen jixaat bi gën a métti bi gën a jafe moom lañ dëgmal mooy jixaatu nas ak sa bakkan damaa gëm na nag kenn ku nekk la nga defoon fàtte ko kenn ku nekk la nga defoon fàtte ko lañ la defoon si ñaaw nag moo on pardonne mais on n'oublie pas mais ci wàllum jëf ci wàllum la doon soi pour la patrie nañ fàtte lépp. ñu la li suñu kanam li suñu kanam mooy dañoo war a réussir Sonko mooy Jomaay Jomaay di Sonko. voilà ba léegi euh, effectivement voilà ba léegi ci mbirum Ousmane Sonko gis nañ bu def sorti di euh, ŋàññi opposition bi na opposition tapper lañu am opposition euh, bu wax ci wàllum sac à main opposition bu noppi lañu am Ousmane Sonko daal dafa mel ni dafay minimiser opposition bi. waaw bu ñu jaawalee. keroog le politicien moo doon wax. le président. président voilà parti Pastef moo doon wax. soo xoolee loolu Sénégal yi dañ koy fàtte président bi ñëwee dafa séparer les choses politiques ak les choses administratives soo xoolee lépp loo xam ne activités politiques la ay moyens boom la cay demee ñoom limousine ñoo koy wër garde corps yi ñam naa ànd ñoo koy wër am jom tayf mooy ñëw couvrir ko keneen noonu keneen noonu du mobiliser daray moyen état xam nga loolu aussi rupture la soo xoolee RTS RTS dëkkee nday di seex ñëpp lay wane loolu rupture la salaire du président ne woon président moins de cinq millions lay am loolu suñ ko waxoon Sénégal doo gëm ñëpp jàpp nañu Sénégal président bi ay milliards lañ koy fay loolu rupture la wax ne kenn ku ne def déclaration patrimoine kon keroog président Sonko bi muy recevoir artistes yi artistes yi ko wéy la recevoir fan la lay recevoir këram demul primature kon nañ séparer les choses politiques et les choses administratives te loolu nag am na ci droit wax nag politique ne après màggal jox naa rendez-vous ci terrain bi président mos a jóg ci terrain bi. kon nag ñi ñuy waxal xam nañ seen bopp ñun nag la ma la waxoon rek sëñ Bass Abdou Khadre ko wax barki démb seedeel ko damay fàttali Sénégal yi président ñun daf ñu ne sama njaboot li mu leen digal man moom laay doxee dama bëgg ngeen doxee ko mooy bu ngeen dem benn activité religieuse di foofu politique. président daana yéen sëriñ yi man dama naa ànd woon dem ci kilifa yi waaye képp ku muy toog daan la man politique indi ma fi su waxtu politique jotee xam naa ne may tojo sama bopp jinax waaye nag njaboot gi xam ne nii yéen la ñuy def am na xam ne ànd nañu man wax leen ci man laa nekk pour seen xel dal waaye waxtu politique moom su jot damay politique waaye waxtu diine waxtu yàlla su jot dama koy jox borom kon loolu moo am sëñ Bass Abdou Khadre nee na ko leen de seetlu nañ ko ci yow muy mosoo dem ci màggal wala mosoo dem ci gàmm dafa wax politique yow da ngay dem bañ a sëriñ ci dañ war a noppal bu dul ñu dugg si politique parce que dañoo njaboot ñëpp kon président Ousmane Sonko mu sell mi encore une fois damay wax rek sëñ Mountakha wax na ko encore kenn kon loolu dama koy réitérer man màggal laa nekk tey bisu bànneex la bisu mbégte la comme barki démb ba ma jàkk tàggoo ak Ousmane Sonko mais si kër sëñ Fallou soye bu mu nekk mbégte ci man mbégte moom ba léegi moo may animé wax dëgg yàlla aw ma jotu ñooñu gis nga opposition sama boobu opposition saak saak amee après màggal la comprendre mais aw ma seen jot parce que man si ndigal lay wéy président danuñu bu ngeen saaga sama njaboot du saaga mosoo gis muy saaga mosoo gis ko tax ci Sonko di saaga aay nañu ko duñ ko def waaye nag yéen Sénégal yéen laay waxal ki leen bëgg a jiite nee na moom du fay impôt c'est un fiscal ba pare yor na montre ba xam ne nii mën na cee gaal ak kër yéen Sénégal yéen laa ne wax ña xam ne nii nee nañ dañ bëgg a jiite nee na ñoo waay ab saagu 3 millions lay première dame di di yor waaye ndekete ca dëgg-dëgg-dëgg saag ba sax 25000 romb ko yéen Sénégal yéen laay waxal opposition salon bi nee na dañ leen bëgg a jiite encore une fois ñoom de lépp lu ñu wax ay nar la te ñoom nee nañ. sàcc moo leen gën ay fen man loolu la ak Sénégal ñu bàyyi xel ci loolu rek <laughs> mais moo tax nag mais nag ñoom moom moom bugaan tontu na leen parce euh, tontu na leen na defoon na su wax que ni mais yàq na kete mais Ousmane Sonko ci kàddu yoo xam ni euh, ñaaw na lool mais neen après màggala leen di tontu ndax tontu du forox. Euh, Ndeye man daal wax naa la nee la ci ndigal lay dox. sëñ bas Abdou Khadre nee na Ousmane Sonko de liñ ko nawee mooy moom événement réalisé du ci profité wu di ay soxlay politique am man nag ci njaboot gi laa bokk kon nag lam digal man ci loolu laa nekk ñun duñ saaga nee naa la Ousmane nee na kenn ku takk ci moom di saaga yow yaa am jàpp mais jàpp mu la man maa ngi mosoo dégg ma saaga waaye léegi nag yéen Sénégal yéen lay wax ki xam ne nee na ñi fi nekk ñi fi yàlla teg ndogal d'accord ko ba pare nee na da leen bëgg a remplacer ah moom day dëkk saaga. léegi nag yéen c'est à vous de juger rek Sénégal laa joxoon rek xool leen baax xàmmee ngeen ràññee ngeen 45 pour 54 euh, pour cent yi xam ni ñoo voté ñii tey mu nekk mbir yàlla yéen laay waxal bu leen kenn manipuler président du leen war mukk la doon saw pour la patrie boobu ko animé ba léegi mooy woy di ko animé loolu la am lu may wax léegi nag maa jox Sénégalais yi rendez-vous après màggal yéen ña xam da nekk ci vacances agricoles yi. continuer leen ko yéen ñi xam ne nii da ngeen daan xarafal ay ndaw seen quartier yi seen dëkk yi àll yi sori yi continuer leen ko yéen ñi xam da ngeen def ay reboisement ay zone de reboisement continuer leen ko vacances patriotiques yi xam ne yéen nga def def ay cours di dispenser ay cours de manière gratuite di jàppale seen xale continuer leen ko am réew ak gouvernement rek du ko defal c'est une participation citoyenne d'une manière inclusive loolu mooy tax am réew loolu yi nag la Ousmane Sonko mooñ ci ñun ba valeur yooyu ñu ko dégager kon daal li may wax encore rek bon màggal yéen sëfoor si daw leen jàmm dal leen ak jàmm jërë ngeen jëf.